الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يرحمكم الله وتفكروا في حوادث الزمن فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من غرته الدنيا أيها المسلمون ابن آدم من أكرم المخلوقات على الله خلقه الله وكرمه وفضله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi noo ngi dénk sunu bopp ragal yàlla di leen ko dénk di ci soññ sunu bopp di leen ci soññ di wax ne nanu ragal yàlla ndax yàlla yërëm nu waaye nanuy xalaat ci xew-xewu jamono ku texe mooy koo xam ne gis na waar ci keneen mu daal di daytalu daal di waaru ci kooku ki alku mooy ku topp ay bànneexi ba kanam ba daal di alku dee dugg safara mbokk julit yi doomu aadama yàlla da koo fonk teral ko muy mbindeef mi yàlla gën a màggal gën koo teral ndax yàllaa ko bëgg defal ko ay ngëneel moom yàlla moo wax loolu ci alquran ne doomu aadama maa ko teral maa ko yëkkati ci géej ak jéeri maa ko wërsëgal ci yu teey yu dagan maa ko gënal ci lépp loo xam ne bind naa ko muy mbindeef mbokk yi ci yàlla suñu xutba tey mooy xawaadisu sayaaraat xaqaa'iq wa asbaab accident yi nga xam ne tey foo tourné ci biir Sénégal accident lañ lay wax wallahi allazi la ilaha illa huwa fii ma dugg minbar bi toog léegi rek nit fekk na ma fi ne ma sama mag dañ ma woo léegi ne ma def na choc kookoo ngi toog ci jumaa ji xamagul kooku fu mu nekk fii ma toog léegi ci minbar bi laa wax nit raam na fekk ma fi ne ma sama benn mag wax ko xam naa kooku fii la doon jullee jumaa ñoo ñoom moo ñoo fi nekk mu ne ñaanal ko léegi nee nañ ma def na choc ba ñu ngi ko yóbbu fan fii même pas trois minutes waaw ñun ñëpp ñoo war a xew lan moo xew Sénégal boo waxee ñu ne la jinne yi ñoo jëkk ci tali war ñu ne la nangam ak nangam kam min abin ñaata tey ñaata ci ay baay baay boo xam ne xaraja min baytihi saliman muafan qad wadda awlaada wa wadda'u ala amal li liqaain bi qarib walakin xaala duna liqa marratan saaniya xawaadisul murur ñaata bàyyi ñooy xëy ndeysaan tàggu seeni doom akolaatanteeg ñii fóonanteeg ñii fab ñii nuyu soxnaam ne ko à tout à l'heure ndeke mi ngi dem dootul tourner dañuy jekki-jekki ñu ne dee na fan accident kam min zawjin aadda taam algada ñaata soxna yu seeni borom kër xëy génn ci seen poos jox leen ñu dem marché di préparer togg añ ba ñu yekk añ bi ndaw si jël téléphone di woote ñu ne ko kooku kay mu ngi ci morgu hôpitalu sàngam dafa dee sànq ci accident kam kam kam min ummin ñaata ndey nga gis yoo xam ne gaaba anha falazu kabadiha ñaata ndey nga gis yoo xam ne seeni doom tàggu nañ leen ne yaay maa ngi tukki maa ngi dem barabu sangam wala maa ngi def nangam ndax nangam ak nangam yaay jooju do day am mbetteel day jékki-jékki ñu woo ko ne ko sa doom dee na ci accident kam kam fil mustasfiyat ñaata tey ñoo tëdd ci hôpitaux yi ay doomu aadama yoo xam ne terminé ça y est dootuñu jëriñ seen bopp dootuñu jëriñ keneen léegi lan lañ ay poupée doomu aadama yooyu dañ leen di fab dañ leen di yëkkati dañ leen di sang dañ leen di solal lu ko waral accident ñaata nit yu doon jëriñ kërum lëmm wala quartier lëmm wala dëkkub lëmm ñu xëy anañu accident mbokk yi est-ce que ñu ngi xalaat ci xew-xew yi di xew ci réew mi est-ce que ñu ngi xalaat ci reewande gi nekk ci tali bi est-ce que ñu ngi xalaat ci ger gi nekk ci tali bi est-ce que ñoo ngi xalaat ci tali bu yàqu bi nga xam ne chaque jour nit a ngi dee chaque jour ñaata tey ñoo handicapé yor ay beeke ñii di raam ñii gisatuñu ñii ay genn wàllu nit lañ lu ko waral accident moo tax waaja ba mu ne papaam damay ut oto papa ji dummóoyu ko mu demaat ñaari at ñëwaat ci papa ji ne ko foog ma ut oto papa ji xeelu ko mu ñëwaat ne ko damay ut oto mu ne ko d'accord waaye nañ dem balaa ngay ut oto nañ dem mu jàpp ci loxo xale bi mu yóbbu ko ba urgence daan teg mu ne ko xoolal mu xool mu ne docteur bi ñii ñëpp lu leen fi indi mu ne ko accident mu ne ko gis nga oto li muy def kon boo yoree oto xamal responsabilité bi nga yore mais da ngay gis ku yor oto mel ne ku yor senkal lu ko neex lay def ci kaw tali bi nga gis ay nit di course comme ñu yor ay fas ci kaw tali bi waaye nag olof yi dañoo wax ne bukki bu yebee ponkal ca doxin bala kam min saxsin ñaata nit nga gis wa kam min kam ñaata ci ay doomu aadama yoo xam ne accident mu ngi leen di toroxal mu ngi leen di rey guddi ak bëccëg ixwatal iman qadiman qad kana al jadwa qad kana al jadir wa ma asbaha min al abwa tataasabu fihi nnas fa rubbama daxala al waba bu njëkk li daan rey nit ñi lu bare bari mooy ay balaa ay lor ay feebar ay jàngaro nga daan dégg ñu ne nangam kër sàngam ñëpp dee nañ ñu ne xanaa feebar dafa dugg ñu ne waaw mais tey dañ naan ne kër sàngam dee nañ nga ne lan la ñu ne ñoom ñëpp dañ doon tukki dugg ci oto ñoom ñëpp dee nañ kenn rëccu kërum lëmm ngay gis ñu dee ci accident kërum lëmm kenn du del kenn du génn lu ko waral lan la dañ lay limal sax léegi naan la ci ñetti weer yi wala ci ñetti fan yi wala ci at bi tant personne dee nañ ci accident wu tali léegi dañ la koy limal ay ay chiffres lañ lay jox yu wér mbokk yi dee dëgg la de inna al mawt muqaddar ala al jami dee yàlla def ne ñun ñëpp ñoo koy def mu ne kullu nafsin zaiqatul mawt waaye yàlla bu mu nee dañuy dee nag waxul rek nañuy dee nii rey suñu bopp ci ci kaw tali daf ko utal ay sabab nit ñi war koo moytandiku jël sabab yooyu dee nit daf koy moytandiku du hasard oto bi am ceinture du am hasard oto bi am frein du am hasard oto bi nangam ak nangam pour lan ñu naan la yoral torche utal nangam su la alkaati bi arrêté wala gendarme bi di la contrôler waaye xoolal yooyu yëpp amul njariñ ay sabab yu bëree bëri ci alxuraan sax. dañ ñuy tere ñu rey suñu bopp yenn vitesse yi ku ko def su nit ñi deewee ci oto bi ëllëg yow mal xiyaam yow yaa leen yow yaa lay layoo seen ru ci kanamu yàlla te loolu la chauffeur yu bëri bàyyiwul xel da ngay gis chauffeur boo xam ne rey na ci dundam nangami nit conteneur di dox dara boo waxee mu ne assurance moo leen di fay lan lañ la wax boo reyee nit ci lislaam loo war a def su fekkee yaa ko tey loolu moom amatul saafara jahannama rek nga jëm ëllëg yow mal xiyaam wa man qatala muminan mutaammid fa jazaauhu jahannam loolu yàllaa ko wax waaye boo ko tayul dañ ne la yow da ngaa war a kaffaara boo doon dawal accident bett la nit dee ci yow da nga war a kaffaara nga tël nit kooku rey ko te yëgoo ko da nga war a kafaara lan mu nga war a kafaara mooy da nga war a woor ñaari weer yu toppante wala nga goreel jàmm waaw léegi gars yi dañ koy dañuy rey seen yoon nekk koo ne wooral mu ne non loolu man mënuma ko kon bakkan yi du ay bakkanu xottu gerte yàllaa leen bind yàlla dafa tere nit mu dugal ci bakkanam lu koy lor wala tulqu bi aydikum ila tahluka surtout Bakara aya 195 yàlla nee na bu leen dugal seen loxo yi lu leen di alak kam nuhina an qatli nafs ñaata yoon lañ ñu tere ñu rey bakkan yàlla mu ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp inna allaha kaana bikum rahima moom yàlla da leen a yërëm ibadallah même bu fekkee sax waa ji dafa am problème bu bopp wala dafa dese wala xam nañ ne kii mënul gérer alalam l'islam day wax bu ko kenn jox alal ji wala tu'tu as-sufaha amwalakum yàlla nee na ñi dese bu leen leen jox seen alal kon bu fekkee islam tere na ku dese ñu jox ko alal kon nu ñuy jëlee ku dese di ko jox oto mu koy dawal ay nit doon nañ tukki di dem benn dëkk bi ñu duyee oto bi ba mu fees ñu dégg chauffeur bi ne egg place boobu léegi wala alaxira léegi maanaam place boobu léegi ñu yegg fa wala ñu dem alaxira ñun ñëpp ay pas daal di wàcc ne ñun demuñu alaxira loolu mooy fulla kon ixwatal iman yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sallallahu alayhi wa sallam nañu def tawakkul ala allah benn waay daa dugg Medina bàyyi gëleemam di tambaalu tambaambalu yonent bi ne ku moom gëleem gi ñu ne ko waa ji mu ne ko yow doo yeew sa gëleem gi mu ne ko damaa wakkirlu ci yàlla mu ne ko aqilha summa tawakkal yeew ko ba pare nga wakkirlu kon oto bi dañoo war a wakkirlu ci yàlla ba pare oto bi nag ñu xool ko balaa muy buuse waaye sababu accident yi ixwatal iman la ca aju ci ay sabab kenn xamul nu mu toll lenn li ci wàllu autorité yi la nguur gi lenn li ci wàllu ñi ñuy ñiy saytu yoon wi ñenn ñi ci oto bi lenn li ci ñi koy dawal kon sababu accident yi ay sabab la yoo xam dañ ko war a partager boo ñëwee ci nguur gi sabab ya ba ca jiitu mooy ñàkk a defar ay yoon yu baax ay yoon yu yaatu ay yoon yu mucc ayib yoo xam ne oto yi ciy daje du ñu jàkkaarloo oto buy daw deux cent et quelque oto bi di daw deux cent et quelque benn ligne bu weex moo nekk seen diggante loolu wóorul oto bi mën na tëlu sax ci tali bi fekk moromam wala mu dugg àll bi kon dañoo war a defar ay yoon yu baax yu mucc ayib yoo xamante ne oto yi duñu daje waaye defar ay yoon yoo xam ne du am ay kàmb du am ay doodaan waaye ay yoon yoo xam ne dafa war am ay lampe du lëndëm imaginel nga dugg ci àll boo xamante ne lépp a lëndëm nga accidenté fa wala ay nit këpp fa fan la ñuy jëlee ku leen sauvé fan lañ leen di séenee ñooñu mën nañu dee foofu maa ngi fàttaliku ay mbokk yoo xamante ne seen oto dafa këpp bi oto bi këppoo ñu xam ci biir oto bi essence oto bi commencé tuuru oto bi daal di tàkk ñoom ñëpp ñu lakk kenn ci ñoom alxuraan bu mu yoroon moo tàkk ba mu des benn aaya inna nahnu nazzalna alquran wa inna lahu la xaafizun loolu moo des ci téere ba mbokk yi kon sabab yi dafa bari ba ca tegu boo ñëwee ci wàllu ñuy saytu yoon wi ñoom it oto bu warta daw ñoom xam nañ ko oto bu ñu seen muy ñëw xam nañ ne bii normal na wala normalu balaa ñuy laaj sax waa ji ay këyit ki nangam waaye xoolal chauffeur yi koo wax léegi mu ne la non loolu amul sens dugg na ab oto kalandoo fii jëm ñaari boulangerie yi ñaari boulangerie yi laa ko duggee di ñëw fii police bi nekk ci benn station sel bi daal ñuy droité daan na waa ji pièce mu jox ko benn këyit mu ne ko ana nangam bi mu ne ko aw ma ana nangam bi aw ma ana nangam mu ne aw ma mu ne ko droit droite oto bi nga wàcce client yi nga droite oto bi ngay indil ma caabi ji. waa ji daal di tourner oto bi daal ñuy yóbbu vrr topp tali bi ma ne ko eh xanaa déggoo kii lu mu wax mu ne dégg naa ko kay ma ne ko léegi nag mu ne bu ma ñëwaatee rek jox ko 1000 francs ne ko lu ma la jox laa uti woon loolu moo nekk ci Sénégal dañ naan la booy def long voyage wecceekul 10 000 1000 1000 10 000 francs ngay wecceeku 1000 1000 foo wàcc rek 1000 foo wàcc 1000 waaw jeex na kon loolu tamit dafa bokk ci sabab yi parce que ñiy def loolu du ñu respecté yoon bi duñ ko respecté jamais oto yi ñu yor duñ leen faale duñ leen xool tey baax na wala oto yi baaxul am na këyit wala am te amul këyit war na daw wala war ta daw foofu tamit boo fa demee nga fekk fa problème bu dul jeex nga ñëwaat ci ndeyu mbi gi nag mooy chauffeur yi reewande goo xam ne kenn mënu koo wax yàlla rek moo xam fu mu toll ci ay nit yoo xam ne jànguñu dara amuñu benn formation jànguñu arab jànguñu alquran jànguñu français jógee dëkk ba rek raxas fas dawal fas ba ci yàgg ñëw raxas oto arrière avance tourner dem mun a tourner oto bi mun koo yóbbu mun koo raxas indi ko dem ut permis commencé tegu ci tali bi wàcce seen i tubé yi nag ba fii jaxase seen bopp yu mel ne lu yàlla xam ne acca bismillah loolu ngeen di fekk ci garage yi ñooñu tey ñoo yor oto yi di yóbbu ay centaine de personnes nga gis kaar boo xamee ne li ci nekk mën na juróom fukki nit wala juróom ñaar fukki nit benn xale bu ndaw nekk ci ci kanam ñeneen ñi nekk ci ginnaaw naan la bërig bërig di dóor oto bi di daw kenn du wax boo waxee sax ñu ne la hé même oto bi sax benn client ci biir bu ne oto bi day mu ngi daw baax ñu ne ko noppil dimbali ñu de ak sa làmmiñ moo tax bu ñu këppoo nag commencé nit ñi commencé wax chaque jour nit ñi dañ leen war a aar bakkan yi yàlla da koo fonk yàlla dafa fonk doomu aadama l'islam nangu na ko bal yàlla tabaraka wa taala daf lu indil sax ay xéewal yoo xam ne yonent bi sax indil ñu azkar yoo xam ne bu ñu yéegee ci oto wala ñu yéeg ci mala wala ñu yéeg ci waruwaay dañoo war a wax azkar yooyu pour yàlla muccal ñu ci accident yeeg yu bon yi waaye gis nga oto yoo xam ne amul loolu ay gàllaaj lañ ciy takk ba mu fees te terewul accident yaa ngi am oto bi la ci ëpp gàllaaj oto bi la ci ëpp gàllaaj laa la wax moo la gën a nor moo la gën a yàqu bu leen fàtte parkingu super yi li taxoon ñu ne dañ ko fiy jële lan la woon mooy super yi baaxuñu nañu indi ay tata ana tata yi tey li super yi doon def ci mbon tata yi double nañ ko li njaga njaay yi doon def ci ay crime biis yi doublé nañ ko lu tax parce que kenn ragalul kenn koy ragal waa ji nga xam ne boo ko joxee 1000 francs nga am li nga bëgg loo koy ragale waa ji boo ko joxee 2000 francs nga am li nga bëgg noo koy ragale nooy nekkee ah no gis naa chauffeur boo xam ne dañoo am mbàkke dëj mbàkke ñu dem jaale ji ñuy ñibbisi amuñu oto ñu ne ñu foog ngeen dem ba Touba jël oto ñëw ñu dem ba Touba jël oto ñëw chauffeur bi yorul permis fi ñu njëkk a droité ñu ne ko permis bi mu xool ci kaw gisul dara mu ubbi saak bi gisul dara mu jóg fi mu toog gisul dara ñun ñu ngi ci kanam ñu ngi koy xool mu ubbi fu nekk gisul dara mu ne waaja permis bi dama koo fàttali waaji ne ko wàccal mu wàcc ñoom ñaar ñu ànd dem ñëwaat mu ñëw taal dem yóbbu lan la ko jox ku yorul permis xoolal Touba ba Dakar kon situation yi dafa bëri asbaab yi dafa bëri sabab yi dafa bëri kenn mun koo wax ba mu jeex looloo tax mbokk jullit yi lii xew di xew chaque jour nga dégg jël nañ ay mesures jël nañ ay mesures ay permis de point ay nangam ak i nangam waaye dara dara dara du sotti ndax doomu aadama yi seen jikko yee yàqu nga gis kii di dawal waxuma sax comporte waxuma sax dara ci oto bi waaye moom comportement am rek kii warul dawul oto li mu sol rek warul taxaw warul toog fii mu toog ak melokaanam ak ni mu mel ak ñàngaayam ak ah kii warul dawal oto melokaan bi rek am na ñoo xam ne soo xoolee seen oto rek jarul nga ciy dugg boo ciy dugg dem alaxira mais seen melokaan rek ngay xool ak niñ mel ak liñ sol ba ca tegu mooy xoolal chauffeur boo xam ne day dawal mandi jóge nañ Casamance du année bii année bu yàgg ñu jël benn sept place ñu ñëw ba ci digg àll bi waa ji ne dafa am garab gu may jël fii garab may leen ma ñaari minute rek mu wàcc jël gutt dugg ñaari minute mu daal di génn daw ñëw yëkkati tubéy ji anawaa bismillah suñ dawee ba ci yàgg mu daal di ubbi gutt bi guux tuuti uy teg am na ku ma àndaloon ko tur Ousmane Diouf su waa ji ubbee gutt bi guux rek day geestu xool ma maa ngi ci ginnaaw ndeke waa ji sum-sum lay naan bi ñu eggee Kaolack lañ ko xam ndax lan oto bi dawal na ko ba échappement bi toj trois fois la ilaha illa des bu yeggee Kaolack ñu ne sawaay mu ne waa ñu ne ko ñun Dakar lañ jëmoon waaye wàcce ñu non bu ngeen toogoon deux minutes ma yóbbu leen Dakar ñu ne ko déet may ñu rek may ñu rek ah ñu wàcc ñun ut beneen oto xoolal xoolal loolu sum-sum ndeke lay naan ci àll bi la ko jëndee def ci gutt boobu fan lañ jëm te mu ngi dajeeg mu ngi dajeeg gendarme mi ngi dajeeg douane mi ngi dajeeg police ko fu mu droit rek wàcc joxe dara ñu dem ba kañ lii mooy sabab ay dawa dawalkat buy màndi fu ñu jëm ah dawalkat boo xam ne sa waay ay lo ay tànkam sax jotul jotul jotul frein yi fu mu nekk foog mu tegale ay njaganaay ay ay njaganaay toog ci kooku war na dawal oto kon accident yi sabab yi ñii ñoo ko partagé nguur gi ñi nekk ci kaw tali bi di saytu oto yi ak ñi nga xam ne nag ñooy ndey mbi gi ñoo yor oto yi comportement yu ñaaw reewande wiccax loxo da ngay gis ku war a rey ku war a mbëkk nit mu rëcc nga ni ko am nga sens ma nga saaga ko am nga sens su ma la fekkoon dinaa la kooku xam nga ne dawul rey nit dañoo xamul nag ci li nekk ci rey nit moo tax su ko xam suñ ko xamoon danañ ndànku danañ teey danañ xam ne àdduna dina jeex danañ dem ci borom bi tabaraka wa taala ëllëg dajeeg moom kon yii ñuy def yëpp danañ ci génn aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu din walau kariha alkafirun ibadallah amma al asbab ba tey ci sabab yi nga xam ne moo des mooy daw yenn vitesse yi ci kaw tali bi vitesse yoo xam ne leer na ne leer yàlla lii oto waru ko daw li koy waral nag mooy nekk place su sàngam ba tardé nga ni naa egg place sàngam heure bi ma waroon yegg fee ba tax tegu nga tegu ci tali bi oto bi di naaw ngay doubler de gauche à droite nga gis kuy doubler troisième position nga gis ku koy doubler oto ñaari 16 21 yu tegalu nga gis kenn di leen doubler léegi doubler nga nga war a ranger wu beneen oto jàkkaarloo ak yow fu nit ñoo ñu jëm ñëpp nga rey leen ba pare dem tëdd di nelaw benn chauffeur mu ngi ci jumaa ji toog maa ngi moom ñoo ànd julli si jumaa ma ne ko yow lan moo tax accident yi bu amee chauffeur yi duñ dee. mu ne ma dañuy joxe ñeneen ñi bu ñu jàkkaarloo accident rek beneen el bi la ñuy joxe ñoom bi ñu nekkul bi su ko defee ñoom dañuy blessé rek lu accident bi métti métti dañuy blessé mu ne saa yoo déggee chauffeur bi dee na mooy dafa yéex a gis accident bi waaye bu ko gisee muy ñëw mu ne ñeneen ñi lay joxe ma ne ko allah xoolal loolu ah moo tax nga gis accident nga ne ala ci nekkoon fii ñu ne la ñëpp a dee chauffeur bi moom dafa daw jëndi la jaar ñu ne la dafa daw dafa daw kon xam nga ne kooku loolu mbokk jullit yi il faut lii ñu seetaat ko gars yi nee nañ Guinée ñu ne dafa bëri woon accident Sékou Touré daal di teg xaalis bu bëree bëri mu ne ku deful accident bi lii yow lañ koy jox année bi bu jeexee mu ne année bi jeex kenn deful accident mu ne ah yéen a ko tey ku fereeti nit ñu rey la voilà loolu ay mesures lañ war a teg ci tali bi permis à point yooyu ñuy wax wala nangam ak nangam yooyu ñuy wax dañ ko war a def du ñu bàyyi waa ji mu rey ay nit rek ñu daal di koy tëj deux mois mu daal di génn di doxi soxlaam après ñu joxaat ko permis mu ne waa reyaat ñeneen am na chauffeur yoo xam ne li ñu rey ci ay nit kenn xamul nu mu toll boo yoroo bis cinquante place nga def accident quatorze morts yow waratoo dawal ah beneen ba ca tegu da ngay gis ku paan daal di taxaw ci kaw tali bi amul benn panneau de signalisation buy wane ne am na lu fi nekk xam nga lu ñuy dagg di ko teg ay xobu garab xobu garab ay xobu garab ngay gis ñu teg fi xobu garab xobu garab ngay daw bu fekkee ab dof nga boo xalaatul nga daw ba ne saraax ci ronu camion bi mbokk jullit yi li nekk suñu réew mi kenn mun ko wax waaye nag réew mi nii la mën a mel ndax ay nit mënuñu réere yàlla ba pare am jàmm ay nit munuñu réere yàlla réere seen yonent réere seen diine ba pare daa di normal wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama yàlla li mu wax mooy dëgg yàlla li mu wax mooy ay nit bu fekkee dañoo bëgg a nite dañuy am imaan suñu nopp su imaan ñàkkee nopp ci ñoom dootuñu nekk ay nit ixwaan yi yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na ata anni min allah def ndànk ci yàlla la bokk def ndànk inna rifqa la yakunu fi shay illa zaanahu ndànk du lekk ci dara lu da koy rafetal gis nga ndànk lépp lu mu dugg rek mu rafet olof sax dañuy wax ne daw ndànk dal ndànk daw bu baax jeex na kon foog ñu yaraat doomu aadama yi ba ñu xam suñuy responsabilité ñu xam ne ñun duñu ay bàyyi ma soo waree dugg ci oto xoolal oto bi ngay dugg ki war a dawal oto bi war nañ xool kii mooy kan kii lan la ki ñu war a jox permis xoolal tey li tax ñuy changer permis yi nee nañ genn wàllu permis yëpp foo la kan moo defar foo bi ñi ko jële ki am permis bi mu ñëw ñu xool permis bi ñu ne ko permis bi foo permis la moom nañ ko ne ku la ko defaral wala moom am na ko defaral suñ ko nee diw moo ko defar ñu dem wooyu diw moom ne ko yaa defar lii waaye déedéet ay foo la rek nañ ko changer ñu daal di koy changer mu daal di jeexaat yeneen yi ñu defaraat dina am foo bu fekkee xaalis bi moo am foo dollaro américain bi moo am foo euro bi moo am foo léppay am foo mbokk yi waaye lan la dañu war a jël ay matukaay ba ñi nga xam ne ñooy def foo foo yooyu bu ñu leen jàppee seen moroom yi xam ne lii ku ko defati lii mooy dal sa kaw soo déggee l'islam mu ne ku rey nit nañ la yóbbu ba ci digg stade bi sëggal la bu ñu lay dóor bal dóor la bal buñ lay jël jaasi dagg sa bopp ñu dagg sa bopp wala boo sàccee li nga xam ne taux bi nga xam ne moom la ñu war a dagg sa loxo nañ ko def ci mbooloo ñu indi la ba stade bi fees del ñu daal di teg loxo bi jël jaasi ji ne ko ci caw daggitu loxo bi jël nële ñu daal di lakk safara lakk loxo bi wala ñu jël yóbbu hôpital ñeneen ña koy gis duñ ko def keneen ki koy gis du ko def waaye tey xoola Sénégal koo xulool mu daw jëli paaka nee na ma xaar ma ñëw ñu naan ko dawal jaasi lay jëli de bu la fekkee da lay rey parce que xam na ne après bu la reyee dara du ko ci fekk moo tax da ngay dégg nit ñi dañuy rey guddeeg bëccëg ah accident yi guddeeg bëccëg crime guddi ak bëccëg Sénégal mooy dëkk boo xam ne léegi saa yoo xëyee minimum di nga dégg fukki nit yu dee yoo xamante ne ni ñu deewee normalul dañ leen a rey ñii dañ leen a nangam ñii dañ leen a ñii dañ leen a wala chaque jour boo xëyee di nga ko dégg minimum minimum chaque jour di nga dégg fukki nit yoo xam ne ni ñu deewee normalul dee dëgg la waaye ni ñu deewee moo dul moo jaaduwut démb dañ maa yónnee benn vidéo benn pitax bu tag ci fiilu courant Europe ñu woo sapeur pompier ñaari oto sapeur pompier ñoo tegaloo wii wii wii ba yegg si fi pitax bi tag ci courant bi ñu arrêté circulation bi indi seeni lenge bu ngand giri ay nit yéeg ñaar ñuy sauver pitax bi ñuy sauver pitax bi waa ji doon filmer affaire bi mu ne wallahi fii laay dee dootuma ñibbi Afrique ndax fi nekk fi pitax moo gën nga nekk Afrique nit. vidéo bi moo ngi moo ngi fii sama portable pitax pitax am na ñu ma ko envoyé fii ci mbokk yi ñu ngi ci jumaa ji toog waa ji ne man dootuma ñibbi fii laay dee wax na dëgg fii accident day am car bi day këpp cinquante personnes bu leen fàtte. élection Macky Sall ak Ablaye Wade Moustapha Niass cortège am la taxoon mu arrêté campagne am mooy cortège am oto bu mag bi moo daanu ay nit nekk ci suuf oto bi war seen kaw ñuy xaar giri bu jógee Dakar pour yëkkati ko pour ñu génne ñooñu ñëpp dee ña mu tegoon seen kaw dee xoolal accident am ñuy xaar fii sax accident day am ngay xaar sapeur pompier cinq heures de temps waaye ñu la di ci tali bi xoolal tali bi ni mu tàngee safara sa ay une heure deux heures trois heures sa allahu akbar waa ji tëdd ci tàngaay bi deret bi di sotteeku ñuy xaar sapeur boo yooyu ne oto bi amul woon gasoil la ilaha illa fële pitax pitax pitax moo tag ci courant ci fil tànk yi laxasoo mënutul dem ñu téléphoné sapeur ñëw fii yéen mbokk yi kan moo ñeme ku ku gis fii muus muy feebar nga téléphoné sapeur ku ko ñemee yëkkati sa loxo allahu akbar pourtant ñee ay nit rek lañ de pourtant ay doomu aadama leen ñun de mais dañoo def seen bopp ay nit ñun ñu def suñu bopp ay rabu àll waaw def suñu bopp rabu àll tey bu ñu fekkoon fii ku dee ñuy woo police wala gendarmerie wala ñuy woo sapeur billahi wallahi taalaay bu doon fajar bala ñuy ñëw mi di jot waxuma laa nag accident boo xamante ne dégg ngeen barki démb ñu ne ministre bi yor mbirum tali bi ci boppam moo accidenté bi ñu woowee sapeur mu war a sauver ñi mu àndaloon bi ñu woowee ambulance bi war a jël si ñi mu àndaloon ambulance bi accidenté ambulance bi accidenté moom mi war a jël si ñi blessé mu accidenté ba ay nit dee wala déggu leen si loolu waaw waaw léegi nag mbokk yi lu ci des lan moo des Sénégal léegi kon est-ce que nii lañ nar a toogee rek di dee par kenn kenn ku génn rek dee doo ñëwaat fii ma toog léegi ci minbar bi balaa may yéeg fii la ma benn mbokk fekk ne ma sama mag dafa accidenté léegi xamagul mbokk boobu xamagul magam bi ci lan la nekk ngeen ñaanal ko yàlla yàlla oyofal ko ko yàlla oyofal ko ko kon dëgg-dëgg mbokk jullit yi war nañ xoolaat suñu bopp li yëpp nag li ko waral mooy feebaru jikko yi jikko yee yàqu jikko yee yàqu ba mënatuñoo defar dara war nañu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat ñun ñooy ñan war nañu duggaat suñu biir néeg ñu ne ñun ñun ñooy ñan loolu dafa jaadu mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ndànk du nekk ci dara lu dul mu rafet yàkkamti du nekk ci lenn lu dul lu yàqu yàkkamti du nekk ci lenn lu dul yàqu waaye war nañu xam ne ki nga xam ne mooy dawal wala mu nekk ci kaw tali bi wala kii defar tali bi war na xam ne ëllëg dana taxaw ci kanamu yàlla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kii defar danañ ko laaj ëllëg li nga doon defar ndax yàlla xam na sa yéene ki nga xam ne koo taxaw ne ko saytul yoon wi lu mel nii ak lu mel nii jaaduwul mu taxaw fa nekkal fa boppam ki yor oto bi xam ne oto bii war ta dem wala moom melokaan bii mu yor war tay cee yor oto ah nga gis ku bëgg a tegale Dakar Ndar trois fois Dakar Ndar nga dem ko trois fois ñëwaat booy ren barki démb dem naa Dakar trois fois ñëwaat loolu doomu aadama dina ko def nga yor ay doomu aadama def leen ah ngay dawal fii fu nekk nga dugg fa ak nit ñi doomu aadama yi ba ko ku yegg si rek allahu akbar voyage yi woon nañ génn bay ñëw ñun ñu voyage yi woon kuy wàcc rek da nga naan mbokk yi maa ngi leen di dénk yàlla billahi wallahi ñun ñëpp kuy wàcc da ngay xool ñi ci oto bi ne leen maa ngi leen di dénk yàlla ba ba ngeen di yegg ndax dawal bu bon ak bu ñaaw ak tali bi boo ci nekkee ngay dem longue voyage yi da ngay tiit ba ba ngay yegg sooy ñibbisi da ngay tiit ba ba ngay egg si kër ndax li ngay gis ci kaw tali bi ni mu garaawee mbokk jullit yi lii lépp nag nu na lii lépp nu na waaye bu nu defaraatee suñu bopp la mbir mi di baax waaye bu nu lànkee mel nii nii rek lay continuer day gën a garaaw inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla du soppi ay nit nit ñi ñooy soppi seen bopp yàlla du soppi kenn kenn du toog naan hatta yahdiyani llah ba yàlla jubal ma mukk yàlla du jubal kenn yaay jéem a jubal sa bopp wallazina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana yàlla nee na ñu jéem a góorgóorlu pour jub ñoom laay góor ñoom laay teg ci yoon wi mbokk jullit yi ginnaaw xutba bi noo ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu soppil ñu sunu réew ci melokaan yu ñaaw yu ñu nekk waaye ba tey incha allah suñu paree julli fekk nañ fi ay mbokk yoo xamante ne dañoo tawat am ay ordonnance fekk naa ay nit yi ñëw kër ga am na ñoo xam ne fekk nañ ma fa tey ci suba ñoo ñëpp nekk ci ay jafe-jafe ci ay tar-tar suñu paree julli incha allah ku leen mën a dimbali incha allah nga jox borom gilet yi jaune yi liñ leen di dimbalee buñ paree ñu séddale leen ko ñoo ngi ñaan suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu yàlla yàlla def si ñun dégg ak topp yàlla nu yàlla nangul nangul leen allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazibna ba'da al mawt برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر